ولإرادهم جرا ولكرم الجنبا أقاسني الحنان من كيد من خلا وسالكنا للخل لي برما ينبا السلام عليكم ورحمة الله يسر المنى لدى لمبل وري man xaada li ma xaaba an kulla wëli noo ngi nii ak si aéroport Léomba ci Gabon moom nga daan dégg sëriñ bi di tudd Gabon gu siiw ga édition deux mille vingt quatre télévision Mayomba àndandoog bu Touba TV ak mbooleem Tawfekh TV ñun ñëpp ñu àndandoo ngir lan toppaat jeexi ci sëriñ bi muy les traces de Cheikh Ahmadou Bamba war a dem nag Mayomba boo déggee sëriñ Moussa Ka di naan Cheikh Bamba def na juróomi at Mayomba kenn waxatul Samba ki Demba Bamba nu agsi fii nag ànd ak kilifa yoo xam ne gis nga leen ñoom sëñ Ahmadou Mbacké murid yi sëñ Fallou Mbacké ak euh, sëriñ Bassirou moom sëñ Mountakha jiite yoon wi nu bàyyi ko ci jàmbaar ju mag ja di sëriñ Mountakha waaye murid yëpp tey fa séenee topp jeexiti sëriñ Touba yooyu loolu kon tubaab bi bu xamoon ni bu indee fii sëriñ bi lii mooy mujj am bon crée fi comité pilotage bi nga xam ne mooy kuréelu Mayumba ku ci siyaar ñoom sëñ Cheikh Mbeng Baye Fallou Gabon ah, sëñ Moussa Kallam Ñang sëñ Baddo Seen ak euh, sëñ Xaasim murit yi nga xam ni bu ma tuddee ñooñu ñu yóbbaale ñu des lii lépp rek mooy sëriñ bi gañe na guerre bi keroog bi conseil privé taxawee euh, jeudi le 5 septembre à 9 heures du matin sur la convocation du gouverneur général le conseil privé s'est réuni dans la salle ordinaire pour de cette kon topp ma ma seet kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw ñu xam xàmme ci ki nga xamante ne leeru borom daaru la waaye di ko xamante ne chercheur la di dimbali taalibe yi ci nan la ñuy jàppe sëriñ bi ci sellam muy sëriñ Ahmadou Mbacke Mbacke tey. jërëjëf sëñ Mamour maa ngi lay siyaar bu baax di siyaar mbokk taalibe yëpp di am mbégte bu baax ci ñëw ci bërëb bi nga xam ne doo bokk ci jeexiti yoonu murit di bërëb boo xam ne moom kenn du tudd sëriñ bi te tuddoo ko ndax liggéey bi mu liggéeyal sunu borom liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ko liggéey la ci ëpp bokk fii la ko liggéey xam ne daana wax ne maanaam bu ko mag ñi masaa mettit lu wax ne waaye nag bu amutoon dara du ko jar moom tukki bi ba tax na kon moom boo fi ñëwee lu maanaam sax kenn ñi mut a jàmbat ndax xam nañ ne moom ka jaaroon moom lam dajoon kenn du ci yow nag ya sunu jëwriñ ci ci yoon bi ndax yaa na fi yaa may jàngal sama professeur laa taxawal tey yaa na fi jiitu yaa moom fii sa bërëb kon moo ngi lay siyaar bu baax rek di siyaar yëpp rek di fas yéene ànd ak allah ci karawaan bi yëpp incha allah Mbacké euh, laaj yi nga xam ne maa koy laaj rek ñu ngi waajal màggalu Touba mu mel ni ñun dañoo ñëw ubbeeku fii ci Gabon euh, ana lan ban message ngay jox taalibe yi ci màggal gi nan lañ ko war a fonkee ndax dafa mel ni fii la taal bi tàkkee fii la sampoon ñeenti bant ñu simpi ko fii lañ ko maralale woon a garab ana ban message ngay jox taalibe yi foofu nga xam ne ab yóbbal la bu njëkk rek ndax conférence yi gi commencé gul waaye lii maanaam ñu defee ko euh, mosoli jërëjëf sëriñ Mamour màggal gi moom moom ni nga ko waxee lii mooy tàmbali bi ndax sëriñ moom ba muy génn ca gaaw ba ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ca la euh, génne woon Mbàkke Bari jëm si fii si yëpp laat Mbàkke mu mbax ma daane wax ne suñu borom dem at mu ne natt buñ ko teg bu dewee ne dañ koy ful bu déwén jéegee ñu fulaat lu ne toll tegaat ko ko ba ni natt bi jeexee ba ni juróom-ñaari at yeeg nangam jeex suñu borom nag tàmbali di ko fay bi mu koy fay nag di def itam at mu ne lu ko fay bu déwénee da koy ful lu lu na toll jox ko at ma ca topp mu fulaat loola lu na toll jox ko ba ni mu ñëwee njëreem nag ca wax na nag li ma suñu borom fayee ca tukki bee nag kawe na sama jox ba tax na képp koo xam ne sama mbég sa mbéga maa ngi sàkk bis bii bu ñëwatee nag ma ci sant la yàlla loolu na kon màggal Tuubaa ma ne lii mooy tàmbali fii itam moo doon moo doon moo doon euh, sabab ba. sabab bi fii la moo doon sabab bi dëgg-dëgg waaw. ba tax na kon lii moom moom moom xam naa di su wax lu maanaam dañuy wax tombe tombe waral ay moo nga moo tax lii moom euh, euh, day doog a agsi ma jël ko waaye nag gis ngeen Serigne Ilimane Touré nekk ni waaye itam gis ngeen Serigne Souhaïbou. di jàmbaar euh, di di di léppi Serigne Cheikh Diop Mbaye moom itam ñëw na soxna Ndeye Fatou Niang moom Baye Ablaye Niang gay gamoo ren nag gamoo na murid yi sot nan nag ndax les lieutenants de Cheikh Ahmadou Bamba gis naa leen gamoo nag kon fii tey dana am na mu demee sëñ bi yaa ngi Libreville ana lan ngay wax murid yi ci xasif xilaami wal midaadi wal jasad hindal yida muxjilatun kulla asad نفعني الله لدى لبر ولي بما بي يغبطني كل ولي نفعني الله بأهل البدر بما نفع حن الردى والخدر مد لي الخار في هرم رمي مخجل كل مخرج ومجرمي lii borom Tuubaa Bamba yaa mat li nga doon bilaay yaay génn góor balay sa yaa man li nga doon ay Mbàkke yaay génn góor bal ba ngaase ba xeex ca geer baaw nuru wala si keroog payoor ba jërëjëfati sëriñ Tuubaa waaw gis ngeen ko noonu eh, lii bu ñu ko toppee nii eh, li daal mooy gañe na guerre bi maa ngi nii di jëm ci sëriñ Cheikhouna Bousso xel yi tey dem na ci sëñ Xaadim Bousso xel yi dem na te dem na tey ci sëñ Fallou Bousso mi nga xam ni moo initié woon lii sama jur yaa ngi sëriñ Cheikhouna Bousso la sa wayjur wa jëmbatoon su xam nga ko Bousso lu yàlla na yàgg ci barke sëñ Tuubaa yàlla na yàgg yàgg sa yàgg sa mbokk yëpp jërëjëfati gis nga ni ah mais suñu xaadim tey looy wax sa turandoo waaw ñoo ngi santaat yàlla bu baax rek day santaat Cheikhul Khadim bu baax te amaat bu baax ci teewaay gi ñu teew fii rawatina ànd koog mbokki taalibe yi ah bi ñu ñëwee it fii ci aéroport bi gis nga ni mu demee ñu ànd ak ñoom Baye Fall Mbeng ak gars yi mu baax ñi seen Cheikhouna Bousso ñoom sëñ Fall loog ñëpp rek gars yi am mbégte bu baax di wax ne nag namoon nañu Gabon ndax suñ fa duggee suñu xel day dem suñu jàmbaar ji Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba ñun trajet bi ñu def ci yoon rek sëñ Mamor dafa metti dinañ dem Mayumba dinañ dem Lambarna suba nag la waaj wi waaye nag ki nga xam ne moonu teeru te way juram daan teeru taalibi sëñ Touba yi di leen dimbali sëriñ Cheikhouna Bousso looy wax yaa ngi Touba TV waaye yaa ngi Mayumba TV waaw salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Mamor xanaa di am mbégte bu baax ci eh, ñëw ki nga xam ne eh, taalibi ñëw nañ ko tey jii ngir lan ngir mën a xeeñ bi jaar-jaari Sëriñ Tuubaa rawatina Mayomba am na ki coono yu métti waaye nag ja xadre kat taksil maal yi kem ni ngay sonne rek ci ngay mën a amee say say kabe mel na ne ñoom ñëpp ñi ñëw ñu ngi ñaan yàlla ñu agsi ci jàmm ak salaam te mbooleem loo xam ne sëñ bi liggéeyoon na bi ñu bokk ci mën a jariñu di sant bu baax a baax di wax ñëpp dal leen ak jàmm euh, di amaan mbégte bu baax a baax sa xol sedd na xol daal am na mbégte bu baax a baax a baax ci bi ñu gisee gañu rawatina suñu maamar mi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn la ci mbooloo mi di jàpp ci liggéey bu baax a baax jërëjëf suñu maamar jërëjëf bu sa baadi jërëjëf euh, gis nga ko noonu xam naa ni euh, lii lépp rek yaatal liggéey Sëriñ Tuubaa bi la ndeysaan fii la ahlu badrin daan wàcc fii la fii la jundulaahi daan wàcc fii fii fii fii fii fii malaaka mu xarab bi ne yi miin nañ ko ndax kiñ fi daan fekk waaw ndax boo fekk boo déggee sëñ Musaa Ka yi wax naan eh, keroog la jàmmanteeg ahlu badar ñuy saafante ñëpp rang dafi gawar keroog gis na jibrilu mu war ca kaw xaysuum tey jëmbeerlu waaye keroog tuuti badar ja dekki borom grade ya ñoo ko tekki loolu fii la woon ci Libreville xam naa lu ci am rek dinañ leen koo saraal waaye lii ab nuyoo la rek ah, sama wayjur wi laay bàyyee kàddu gi Euh, sëñ ji ana bi nga gisee murit yi nan nga def. xanaa bëgg rek. bëgg bëgg daanaka kàddu yi sax du bari ndaxte lañ ca waroon yooyu pare sëñ bi ak yow wax ngeen ko. leen dalal jàmm euh, di wax ne la ca kanam euh, dañuy doog a door. te incha allahu rabbi tey suba bu ñu duggee si programme bi murit yëpp dañoo xam ne sëñ Tuubaa la mu doon liggéey Gabon dañ ko gisal seen bopp. jërëjëf Serigne Baddo mu mel ni sonn nga ci yoon suñ kàllaam suñ kàllaam ñang mu mel ni sonn nga ci yoon wi lool eh, massa coono jël sëñ Mamor waaye coono bànnax la maanaam liggéey sëñ bi kenn du ko def di sonn maanaam lépp loo xam dañ nañ ko ci rek yëgunu ko wallaahi surtout Baye Fall waaw surtout Baye Fall ñun moom dana war a sëgg ñëpp jaar suñ kaw li nu def rek xeeb nañ ko noo ngi leen di sant bu baax tey jégul tey santati bu baax na sëñ bi ginnaaw ànd nañ senegal waaja fa dikk wàcc Gabon ci jàmm ak salaam noo ngi ñaan sëriñ bi dool noo dimbali ngeen nu dem maayom ba dellu si ci jàmm ak salaam te di ko def ay at yu baree baree baree bëri jërëjëf sëñ Mamour jërëjëf euh, gis ngeen sëñ Bolle Mbaye xasaayit moom itam ñëw na waaye itam mboole murit yi kenn ku ci nekk taxawoo euh, fas yéene fekke lii nga xamante ne mooy caravane Mayumba 2024 kon seen télévision Mayumba TV Tawfekh euh, TV ak Touba TV jëwriñ alaaji mbàkk yi fay yebal nu ne nañu ñëw luñ fi war a jël nañ ko jël bu ñu bàyyi dara ndax jàmbaaram jooju rek la bëgg moom rek lay toppi tànkam te ñu ngi waajal ren centenaire Serigne Touba bi mu làqoo nga xam ne loolu fii la waroon a amee am ña ngay waajal centenaire Serigne Touba bi nga xam ne moom lañ ko indee Touba sëñ Modou Safa def yooyu waaye dañoo waroon ne bi ko tubaab yi looloo jaadu woon loolu maanaam moo logique woon loolu moo yenu woon maanaa waaye Serigne Touba kenn xamul lu mu doon billahi Bamba yaa mat li nga doon nu séddu teggi cër bu duum laggul daamul daggul te tiin kum nga làmbi xarnu bi kookoy Cheikh Ahmad Bamba lu xew rek dinañ leen ko indil fii ci Gabon